naa ku nekk ci turam ku sant ku nekk li fii Toubacourot fii mooy youth empowerment youth participation I'm not a big fan of formal education but I will say youth education dimbale leen xale yi jàppale leen xale yi jàngal leen xale yi I might be off the hook man mun naa rëcca waaye suma rakk yu bari ak suma mag yu bëri fii ba tey rëccaa bi lan moo tax rëccuñ lan moo tax rëccuñ ndax empower nañ leen ndax educate nañ leen ndax ñu ngey jox gars yi chance pour ñu participate yow dégg nga Tubakoro fii léegi nii mu ne a milling machine is a political football how expensive is a milling machine today milling machine boobu leen ñaata waa Tubaakudu ñoo ko di use actively ci seen diet waaye a milling machine is a political football make little sense tam wax nañ ñaari wax ci biiram ñu ne bëggoon nañ koo def a poultry ground or a dental clinic loolu yëpp obstacle la where are we going where are we going soo duggee si place yu baax yi ay jàmbur ñoo fa nekk ana waa Banjul ana waa Tubaakuroon amul benn bitig booy gis fii boo xam ne waa Tubaakuroon moo fa toog di jaay xale Tubaakuroon moo fa toog di jaay waaye bul ma wax ne gars ñoo jaay mais man jaaykat laa marché laa juddoo almost ana suma rekk jaay mooy lan olof Njaay def day wax ne li mu saf ki ko mocce moo ko xam li mu saf ki ko mocce rek moo ko xam he who knows benn anecdote su ma pa benn xaritam moo ko musoon a jox liggéey Independence Drive ku ñëw wax Mr Ndour Fatima Touré bi for waaye Ndour moom moo njëkkoon a am place bu ñoo defal minéral pour naan maanaam xam nga bëggoon naa wax suuda waaye minéral moom moo benn paa bu ñuy wax maam Mali Seck maam Mali Seck ñoom ñoo ko amoon keroog am na ko fédéral moom moo ko amoon Independence Drive bi loolu da ngay ba tas une fois su ma minéral bi ñu doon saa su ma ngénte foofu lañ ko defaree fa la jógee déglu ma tuuti rek de suma paa bi jëlee fa benn pousse-pousse boobu ñu ngay jaay duutiir marché dañ doon bëri customer si doon dem terminal di yóbbu seen duutiir yi au garage si Birkama au garage si Basi suma paa bi gis fa benn pousse-pousse mu ne ma Alpha demal nga defar lii xam nga bu ko defee léegi-léegi di nga ko bëgg di use waaye ma ne ko waaye paa nga bëgg a ne ma son dafa loolu rek waaye paa bi dafa bëggoon na nangu pousse boobu suma loxo mënu koo nangu ndax 15 dalasi 20 dalasi 2 dalasi ma si doon am waaye dama tegee Banjul suma complexe Banjul fële I was looking at di money And up till today, I don't give a damn. I've been stuck here for six months almost. Wait, just give me two weeks. Let me not have a way. You're gonna see me driving my cab on the road. Now you don't want to help with that, fine. xale yi bu leen forcé loolu da ngaa bàyyi ku ci dem duga dina gis ku ci dem duga dina gis naa la jox benn exemple fii am na bu fi taxawoon léegi ñu ngi ko wax solo mu ngi starté ak ten ganar. léegi mu ngi dem hundred ganar. five mooy dee six mooy dee he is making ne moom bro bugguma travel Tobacco Road fii la jógee mu ngi tudd solo right here Tobacco fii so loolu doo ko forcer xale yi xale li ngaa def rek moom yow ubbil leen bun ubbil ubbil facilitateur bun tey rek ñuy dugg benn benn bu yàggee déggul duubi pour man loolu ci mu ngi ceeñ Banjul fii man suma time jafe na tuuti even ma ko dogaat la benn anador sa Tobacco fii laa startee jaay war ngaa sukur fii ak silipas nga ñu bari dañu dem play football am nga dama ñoo ñu dama mané <laughs> yo jàkkan nga do mëna play sa dem bay ji wasu yow yaa ci high school problem you know lolu yëpp xam nga lolu yëpp lolu yëpp halal yoon bi rek ngay duggal naxante ñoom ndanka ndanka ngay naxante ñoom ndanka ndanka you know opportunity li xoolal ku wax na lay ñi nekk Europe li ñoo def fu dañ ko doon bañ fi waaye tey boo doon joxoon chance déegul juubi waaye bunte boobu leen bunte boobu leen naa la wax benn affaire tëju na si tëju na foofu de fi nga day joxee loolu tëj na fa boo fa demee bugg a xaalis buñ la lebal duñ la ko lebal foreign lañ koo jox parce que ñoo leen di jox commission high interest rate cut it down rent cut it down put a regulation to it ko five by five meter square mun loo ko rentee more than two thousand five thousand five régulate ko moom tam ki moom loolu dëgg la coono na si nga jox ko tax break si taxes ma at the taxes that's why you encourage entrepreneurship lii mooy suñu jafe-jafe fii youth participation youth education youth encouragement waaw loolu bu ñu ko defee fii affaire dina wàññeeku dina wàññeeku lu bëree bëree bëree bëri waaw youth empowerment bi gars di wax nii ne ko gars yi gën a dugg si dugg si biir dëkk bi xam nga xam nga nit loo xam ne xamu ko jafe na pour nga lifin ko so elders yi ñoo war a go di extra mile please do di go di extra mile nga naxante ak ñoom fóot liggéey la man gis naa malien yi doon fóot fii nii ba tey samp nañ bitik am nañ bitik xam nga am na yoo xam ne da koo won xale yi rek da nga leen koo won rek and they will do xam nga bul ko en fóot bi ne ko wëral di nit ñi di ko xam nga di jëm jël si mbir yi di lahul benn place rek joxe business card ah bro soo bëggee food rek laundry baa ngi nii jël ay machine nice nice nii rek bu gaa indee food ndoo yi nekk si gannaaw fóot ngoon ñu passé ko indil la at the end of the day you make your 50 dollars twenty five bro last not least cut down on the corruption cut down on the corruption waaye mais la nit ñi jàmm waay corruption bi ñun laa rom, boo demee jiyaaree corrupt boo demee nawet corrupt foo dem corruption for what jaaleen nit ñi break nañ teg affaire yi tuuti ñëpp mun a am barke de ma dégg nga minister of health lu mu wax in the house of parliament put bogus people dead people in a list to get paid where are we going the corruption waaw war nañ koo cut down put a stop to it cut down the interest rate cancel eliminatal di uh, slipping bi bi am central bank naka lañ ko dee woon treasury bills eliminate ko interest rate si banque bi nga wàññi ko ba pare nga joxe business rate si nga yokk loo nga gën a wàññi loolu interest rate bi nga bi koo xam ne dafa def fixed deposit nga wàññi xaalis bi benn almost next to nothing business rate bi ñu ay ay ku jël xaalis pour def business nga emale loolu below 2 percent ba pare nga def soo investé xaalis bi 3 percent nga xool. He'd be like, hey, come on, why don't I roll my money and make more money than putting in the bank and just sitting there making 3% to help? This is how you deal with that. Come on, that's simple economics, man. That's simple logic. Huh? Why people make bank put you uh, eh, for a loan, Nila was 19%, 27%. Fight them maglulu? Huh? This small Gambian, I'm 11 banks. Why? Them London hold books you, why? Who know what they're doing? 11 banks in this small Gambian population of less than 2 million people? Where are we going? Interest Bangalan, fine, I'm not sum 25,000, I'm not take over. I make 35,000. You paying for it. you taking that money and you go buy an expensive bread, expensive milk, expensive sugar, expensive transportation. Why? Create the damn jobs, people. Facilitate those things. No, ubil, ubil bunte yoyu. Finally, I'm not being a mistake for President Barrow. Mr. Barrow man dama la jox chance youth man nga I'll give you a big chance a very very big chance ñëwuloo ak experience Why please please Gëna la ubi sa bout, gëna la ño ñu ngi positive sa bor. please lo rek la la ñaan man amuma dara lu ma la suma la bëggé criticize it's just like make no it's a no brainer because yo yàgguloo fi bi nga fi ñëwé yagut xam nga ni nga ñëwé fi nit ñi xam nañ ko waye mistakes ci xewon si gannaaw tral nga overcome yooyu xam nga moytul mistakes yooyu leen bul nangu bul nangu ñuy dugaat si loolu waaw man nag dinaa la jàppale dinaa la bootal waaye xam naa nag pour campagne la dinaa ko xelaataa soo bëggee loolu nga kool ma <laughs> ñu seet naka la ñoo defee loolu jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ñoo seetaan fii ni si Sahel Network TV te ñu ngi ñëwoon fii nii tey si Tabakuroon tey moom am naa fi waxtaan bu ne because suma waaji moom su ma mag ji boor bi la si rajo bi daf ma xaw a péngu tuuti di leen jaajëfal lekk di leen wax ne word waxtaani mbeeda bi lii moo tax ñuy jóg dem fekki gars yi si vuu yi lii laa leen dee wax soo bëggee xam dara soo buggee jànga ñu ñëwal si huut bi si huut bi foofu ngay mun a amee naka ngeen mën a def buy am si programme bi foog ngeen subscribe on YouTube channel on Sahel Network TV foofu nga ko mun a amee word on the street muy waxtaani mbeeda bi ñu jox leen dig daje ba beneen yoon si the same time jërë ngeen jëf